am ko denc taan Thierno men Seydi Cheikh Mahi Thierno Saïd waaw Thierno Saïd nga baal ma tuuti rek waaw dañ fi am gan waaw gan bu rëy fa tabarakallahu Cheikh Seydi El Hadji Malick Sy Maodo di rakku xalifa bi léppam moo bëgg a dugg ci réseau bi insha allahu taala ndax nee na fi ñuy waxtaanee Cheikh El Hadji Omar foo mu dugg si kon insha allahu taala sëriñ asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatu سي مالك سي سي مالك سي لبيك لبيك سي سي سي زياره نغي ديلو زياره باخ سي الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله سي سي ربوني سختورنا جرجف سي جرجف سي الحمد لله سي معنا دفا ملنا شيخ الحاج عبد العزيز رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنه رضي الله عنه jëkk muy génn àdduna am na daje boo xam ni ñu ngi ko waroon defe ci dari xamam Saïd Nourou Tall ak Cerno Muntaqa est-ce que allahu akbar mu ne ma xajmaal bëgg na bés ba su ñëwee nga def ci benn nga ci waajal kan ci waaj def benn xasida barkeeloo ko ci Cheikh Hadj Omar Fouti wóotuma ci radiyallahu taala anhu yàlla dogal tegu ci ñaari weer mu génn àdduna. allahu akbar allahu akbar sama soxna. di doomu Alaaji Abib Si mi topp ci Baye Alxaaj Abdou Aziz ñu bokk ndeeg baay. bés rek mu ne ma xaj man de dama génn sama papa. ab nee na mu daal. والفتى فات لو غن بن كل سما مشي عمر الفوتي رضي الله عنه الله اكبر الله اكبر ما هو امكي ايام يعني ما دقنا كمور سلوي اسكي آه، سلمكم مطن لا وقت على اللي كنت رجع كنت انا كيوم صبنا الحمد يعني. لله اسكي سي حبيب جاي سي حبيب لي آه، سي حبيب كنت انا بسم الله الرحمن الرحيم آه. اليوم طيب ذكرك اي اليوم طيب ذكرك الارجاء يا من وطئت بكعبك الجوزاء الله أكبر لك حين تذكر جدة ومكانة أتحل مجدك أن يصاب بلاء الله أكبر شملتك من منن الكريم فضائل وفواضل بهرت سنا وسناء الله اكبر جاء المهيمن أن يجيبك آية تعي العصور جلالة لبكم شيخ الفوتي رضي الله يا يا فخر الزمان وجوده يا من حكى الرسلاء أه. والرسلاء والخلفاء الله اكبر خلت في الدنيا روائع جمة ابقت لك الذكرى تضوع تضوع تضوع ثناء الله اكبر عمر العظيم نراه فيك مشخصا وبعبقريته أتيت سواء الله أكبر مداحكم مهما أجاد مقصر مداحكم مهما أجاد مقصر أفحمت أفحمتم الشعراء والبلغاء الله أكبر الله أكبر رفع الزمان لواءكم مترفرفا للناس أسديت اليد البيضاء الله أكبر المجد أنتم والسيادة والنذر يا سيدا نعم. قد يا سيدا قد خلفت ما والله احتجبت عن العيون نعم. ولا لنا أحد البنين سعادة وهناء الله أكبر والسعد والأنوار جملة ممتلئة أمام عنف فالسعد والأنوار حرف سعيدنا نعم خصه الباري يدا وعطاء يدا وعطاء بعد الالتقاء آه، تجمع في شيخنا من ناسب الكرماء <laughs> تقف الجلالة في الضريح عليهما شمسان في فلك يموج ضياء الله يا رب وروح في الجنان تنعما ارواحهم وانلهم النعماء يجري على يجري على روح الحبيب واله والصحب صحب صلاته هطلاء الله اكبر على كل حال سكي سكي ما يزيد زيار باه نسمع doomu bàyyi. Cheikh Ahmed Tidiane Sall. Cheikh Ahmed Tidiane Sall est ce que gis nga jàppaat ci wàllu. waaye gisuñu. est ce que doomu bàyyi gisuñu ak. ndeysaan wala Thierno Bachir mi nga xam ne. sama bàyyi la sama soppe la sama sëriñ la sama lépp la. Cheikh Ahmed Tidiane mas naa waxtaan ak moom ci mbirum Thierno ma maaw. ah keroog wax na ma loo xam ne. Thierno loo xam ne. al Thierno Alfa Hachim. yàlla na faat moom. lu doy woon mooy ay Ahmed Tidiane. Mhm. mooy yaayam ñoo bokk baay. ndeysaan dëgg la. Ah. lay dëgg la papaam itam di sama baay. si kontaan nañu baax a baax. si jërëjëf si kontaan nañu bu baax nee na mu ngi ziar yéen ñëpp jërëjëf. Mm-hmm. suñu mbokk mi nga xam ne moo yore woon waxtaan bi. Mm-hmm. Eh, am na mébét bu mu bone mm-hmm. yàlla mën na ko de incha allah. incha allah taala. te moo di rek. rek الله اكبر هناك حمله جديده ستشن نعم على الطرق الصوفيه صح. والمتصوفين صح. ان شاء الله على اختلاف من نحالهم ومناحهم نعم الروحيه ñooñu dafa am lu leen dal moo tax. ba émission bi du pour dàggee. du pour wax lu waaye rek am na loo xam ne itam du ñu ko wàññiwul dara. dëgg la allahu akbar. du ñu ko wàññiwul dara. dëgg la mas naa mas naa wax ba ñu ba ñu ba ñu tuddee. DCPD bu ca Ndar yàgg na. boobu lay soog a jóge Égypte rek. ñu tuddee ko moom Cheikh Omar Fouti. rabi wax naa hadir rimaaxu ci rimaax. hadir rimaaxu tasunu daara. جوهرة جيل المعالي بها يزهو ويزدهر ويزدهر وهذه الرمال آه. تصون الدهر جوهرة نعم. جيل المعالي بها يزهو ويزدهر لكل حال بكي النبع للزيار جزاكم الله خيرا جزاكم الله آه. خيرا ما نزيارت أستاذ شيرنو سيد بن خمني تمو يرى إميشان نرشيخ عمر بوش نزيب والله يزيق لك من سيد نور تالنك ممون mooy xel mooy sëriñ mooy sëriñu xalifa bi. dëgg la waaw Seydi El Hadji Saïd Nourou Tall bi nga xam ne ne. sama pap Cheikh El Hadj Mouhamadou Mansour Cheikhul Qawmi. daf ko daf ko daf ko bëgg a yabal ñu dem jël ci maamam Seydou. man maa ngi koy fàttaliku ba léegi. est-ce que boobu sëñ ba sa xalifa bi may jàngal alquran. dëgg la ci àll ak Cheikh Ndiaye Mabé. daf ko yëppal ci maam Seydou Nourou Tall mu dem. boobu sama maam Seydou Nourou Tall ma nga ma nga rebranché kër gu yaatu la woon. waaw sa boobu sama yaay kooku kër gi mu ngi dund soxnaam la woon xamoon naa ko bu baax ma Papa Tall. waaw Seyda Madina. Tall ak kenn ma daan Tall. Mm-hmm. Euh, ala kulli xaal euh, Muxtaar Njaay itam. Mm-hmm. ñu ngi koy nuyu. télévision bi chaîne bi am na solo loolu. alhamdulilah li may nuyoo mbokk yëpp nag yéen ñëpp nag maa ngi sàkku seen ñaan. la mu daan tuxal suri duaa an. incha allahu taala. <laughs> سكي سي مليئا بالانوار والنفحات والفيوضات ان شاء الله تعالى مع الله دائما على سنة على سنة على, على سنن الحق والهدى امين يا رب الحجماني والسلام عليكم آه، ورحمه الله وبركاته ورحمه الله جزاكم الله عنا خيرا yal ko yàlla fayal yiw yàggal ko suñu kanam est-ce que Thierno Saïd macha allah lii de mbégte la mbégte bu rëy la xam nga lii mooy wane ne kon li ñuy wax dëgg la tabaarakallaahu Cheikh Ahmed Tidiane xaj Malik tabaarakallaahu xanaa jërëjëf lii dafay firnde ni Cheikh El Hadj Omar suñ koy waxtaanee seen Hadj Malik dugg ci biir day wane ni li li ñu dal. mooy yàlla nangu na jataay bi. est-ce que alhamdulilah alhamdulilah. lii nag dafay firnde. gannaaw ba ñu delloo xaaji Malick ay nuyoog sant ci turu nag kër Cheikh El Hadj Omarul Fouti yëpp. est-ce que waaw ci turu kër Cheikh El Hadj Omarul Fouti yëpp. turu Thierno Mahmoudou Bachir. turu Thierno Madani. turu Thierno Makki. waaye turu nag kër gi yëpp. ñu ngi koy delloo nuyoog ziyaara. diko ñaanal yàlla mom itam yàlla wërëm amin ya rabbal alamin yokk fanam amin yàlla xamna ni ne def émission bi bala mu doon jeex bëggoon na ma ngi ak xasida bi fi sama téléphone bëggoon na ñu jàng ko fi xasida bu neex mooy xasida bu am solo allahu akbar way li da fay firndeel rek ni ke Cheikh Alxaaji Omar ak kër Seydil Xaaji malik ndox ak soow rek la. da mhm. ngay boole naan. wala nga boole naan rek. doo ko tuur. parce que su ko defee nag ñu ngi si kontaan bu baax ci tabaarakallahu xaaj Malick. Mhm. di kontaan ci njabootu Seydil xaaj Malick. radiyallahu taala su ko defee nag ñu ngi koy delloo nuyoog sant ci turu kër gi yëpp nag xaaj xaaji mhm. Saïd Nour. jërëjëf su ko defee tabaarakallahu fii Thierno Saïd toll woon. baax na lool incha allah. incha allah daa koy gis. mu ngoog parce que euh, euh, Thierno Macky bi sëriñ bi daa woote rek mu ne ma soo soo paritan yoo. yow yow Thierno Cheikh xaal macha allah <laughs> dafa woote rek ceer la woo waaw nee bu coupé rek yow la nga wax. est-ce que allah pour rek mu ngi mu ngi séddali kóllëre gi nekk seen diggante yéen ñaar alhamdulilah alaaj Mari waaw kontaan nañu ah lool sagale euh, sagaleti nañu sagalete nañu sagalete ah, fa tabarakallah ñun nag ci sagal ñu lañ dëkk ñoom ci lañ dëkk moo tax ma waaye nag fa tabarakallahu li Cheikh mm-hmm. Ahmad Tidiane wax léegi mm-hmm. Thierno Saïd mm-hmm. ngay waxtaanee kilifa gu toll ne Cheikh Alhaaji Omar Cheikh Seydil Haaji dugg mooy li ngeen di wax baax na mhm. fi ngeen nekk baax na mhm. te loolu rek moo jaadu mhm. te li ma ci gën a neex tamit ndakate fa tabarakallahu mébét bi imam Habib am mu dégg nga ni mu ko waxee mu ngi ci xolam ne yàlla mën na bu ne fa tabarakallahu yàlla na ko yàlla mottali waaye daal ñuy kontaan bu wax di ko ñaanal yàlla ni mu ko waxee ñu ngi koy ñaanal yàlla gudd fan gu ànd ak wér ñu ngi koy ñaanal yàlla gudd fan gu ànd ak wér ni ñu ko ñaanale sànq Thierno Bachir